aywa xibaar yi dañ koy doore ak euh, lu jëm ci wàllum investisseurs yi nga xam ne dañu fi ambal ndaje mu am solo fii ci Ndakaaru euh, ci di rëb ñetti fan doon soxna Fati fële ca Diamniadio euh, Dakar capitale des investisseurs euh, agence nationale pour la promotion des investissements et des grands travaux APIX euh, ñoom ñoo amal li ni comme ni ñu ko waxee rek juróom-benn fan juróom-ñaari fan juróom-ñetti fan ci weeru juillet bi muy premier forum international des investissements ñu tuddee ko donc Sénégal Invest njiitu réew mi président Macky Sall moom présider Côte d'Ivoire. di invité donneur bi seen i njiitu réew sax ñu koy xaarandi jamono ji ci Sénégal njiitu réew Côte d'Ivoire boobu sax. Euh, am feeñ ci coowal Birame Souleye Diop mi nga xamee ni euh, depuis démb ci guddi mi ngi garde à vue audition bi nag une heure du matin la jeex euh, ki ñu koy toppee infraction yi daal bokk na ci diffamation boo xam ne daal dañu jàpp ni benn membre bu assemblée nationale moom moo ko amal euh, teg ko jë maanaam jëmale ko ci ab benn njiitu réew boo xamee ni dëkku fii mooy ki ma leen doon wax sànq te Alassane Ouattara nekk fële ca Côte d'Ivoire na andi nasaxal ci relation diplomatique ci diggante ñaari réew yi di Sénégal ak Côte d'Ivoire am na tamit yeneen ñaari chef d'accusation yoo xamee ni ñi ngi ko koy toppee dañuy des ci waa PASTEF ñu amal ay changement ci seen i état major ak ki di Ngagne Demba Touré ñu tabb ko mu nekk coordonnateur des jeunesse patriotique mu fay wutu Ibrahima Thiam mi nga xam ne dañ ko tabb secrétaire général adjoint parti ki di Ayib Daffé euh, moom moo yor euh, léegi euh, poste secrétaire général parti bi nga xamee ni ki di Biram ki di Diomaye Faye moom moo ko jiite woon te jamono ji mu nekk ci loxol yoon na soxna Faty wax itam ci leneen muy conseil des ministres mi nga xam ne démb càmbar nañ rek projet de loi buy indi ay xoolaat ak coppite ci code électoral électorale njiitu réew mi sax junjoon ko waxoon na ko ci euh, message à la nation bi nga xamee ni amaloon na ko ci euh, lundi bi euh, loolu nag ñu nar ko matérialiser ci assemblée nationale muy bonne nouvelle boo xamee ni day concerner ki di xalifa Sall ak Karim Wade ñi nga xamee ni dañoo am yéene bokk ci élection présidentielle maire bu Médina Bamba Fall sax moom àdduna ci loolu nee na c'est pas encore gagné nee na jeexagul. bokkul euh, ci euh, mbirum Karim ak Khalifa Sall ngir ñu bokk ci euh, élection présidentielle yi di ñëw donte seen i cas nañ ko yóbbu assemblée nationale Bamba Fall sax ado ci report élection présidentielle mu ne loolu la jàpp ni moom mooy gën a baax ñu couplé ko ak élection législative yi ngir rek wàññi njëg li seq na waxtaan ak Ibrahima Kane Serigne Mbacké Seck ci jamono yi ñuy ruuma ruumandaat kan mooy nekk candidat Benno Bokk Yaakaar ci vote yu ñu dëgmal ak Macky Sall mi sempi ndëndam Bamba Fall moom li mu wax lu leer la lépp lu mun ci am moom dafay topp ci ginnaaw njiitu réew mi. bi ma nekkee ci ay jafe-jafe Macky Sall kese laa gis moom moo ma tendre la main fekk ñu dàq ma ci parti bi ma nekkoon ña ma àndaloon tamit am candidat Medina xeex ma pour ma bañ a nekkati maire bi ma demee waa Medina jàppale ñu ba am li ñu am. lu fi amaat lu ne rek Macky Sall la ñu jàppale kon tey lii du am rek ñu fii ci kóllëre donc tey dañuy continuer ànd ak moom même bu nekkatul euh, candidat ànd ak moom ba fu mu ñu xool fa. ci lu soxal réabilitation xalifa Sall ak Karim Wade Bamba Fall ne problème bi ba léegi réglé donte nag assemblée nationale ci bés yi di ñëw dina saytu lu jëm ci modification article L29 article L30 ak L57. bu code électoral bi. modification yi nga xam ni moom la euh, dialogue bi indi ñor ko yëpp assemblée voté ko est-ce que réglé na problème yëpp parce que am na ñoo xam ne dañu fi tëjoon daanoon leen ñu war ko fay te fayaguñu ko te bis bi ngay dëpp non Karim Wade Khalifa Sall ak ñeneen am tamit ñoo xam ne nañ candidat lañ te tey ñu ngi yor seen ay ay société ay seen groupe de presse ak yooyu mais xamoo ni bis bi ngay nekk kandaa da ngaa war a wàccoog impôt yeeg yëpp daanañ la daanoon sax da nga war bi. il faut impôt signé trésor signé nga war ne yow desaloo leen dara. Bamba Fall teg ca ne ci wàllu koom rawatina itam ci wàllu politique moom dafay ñaan ñu dàq élection présidentielle bu février 2024 bi. ku mënti gañe février août septembre da ngay tas assemblée bi day fekk mu am deux ans ñaari élection ne fi indi comme que ku mën a gagné da ngay tas assemblée bi mieux vaut ñu boole ñaari couple leen def ko muy benn élection comme ça diggante bi ñu yaatalaat waxtaan bi. yaatalaat dialogue bi pour mën a trouver des consensus forts. moom Bamba di jaajëfal président Macky Sall ci décision bi nga xamante ne jël na ko donte sax moom mi àndul ci woon muy sàkku nag ci Ousmane Sonko mu demandé grâce présidentielle bu fekkee bëgg na samp ndëndëm ci élection bi ñu dëgmal. Euh, ñu wax ci euh, président Macky Sall dem nag ay militants demoon buntu pale militant APR euh, ngir jaajëfal ko ci la mu dellu ginnaaw ci ñetteelu mandat moom njiitu réew mi génn saafonteeg ñoom laata muy dem yoonam ñu déglu ci yenn ci ci réaction ci micro Aminata Mbare Sow ak Alioune Ndiagne. ñoo ngi remercier. président Macky Sall si décision bu am solo bi mu jël ndax wane na ne suñu dëkk am na démocratie wane na ne si kanamu ñeneen bit dëkk yi nga xam ne ñoo ngi jàkkaarloog ño kon ñun si démocratie lañ doxalee lépp. te tey jii exemple la boo xam ne ñun rëccu wuñu ko regretté wuñu ko ndax ñun ñi àndoon ak moom ci ay ndaw 2008 ba léegi tey ñun Macky Sall fierté la si ñun. président wax phrase bu rëy mu ni j'ai un code d'honneur et le sens de la et le sens de la responsabilité historique qui me commande. phrase boobu noonu dinañ ko enseigner dans les grandes universités du du monde. remercier ko jaajëfal ko ndokkeel ko ci ay kàddoom pour wane ne kàddu góor la moom dafa wax jëfe ndax tey yombul nit wax dara ba pare jëfe ko. Macky Sall ba mu ñëwee ci barkeem la pétrole feeñ ba mu ñëwee ci barkeem la gaz feeñ ba mu ñëwee depuis 1960 ñoo ngi football coupe mosul dugg Sénégal ba mu ñëwee ci la coupe d'Afrique ñëw. ba mu ñëwee ñeent ku ba ñëw. waaw dañoo ñëw pour tàcc président de la république ñëw fecc parce que lu tax ñu ñëw lu tax ñu ñëw tàcc ko dafa dugg ci ngor génn ci ngor comme ni ko suñu benn camarade waxee rek. voilà fat yi euh, dañuy dem euh, ca Darou Salaam euh, di quartier bu xam ne ni cité imbécile quartier ba sax nee nañu fi mu nekk nii rasé nañ ko ñetti fan boobu ba léegi ñu nga xam ne ñoo fa dëkkoon nag ñoom nee nañu daanaka ci mbedd mi lañuy fanaan amatuñu fu ñu dem ñeneen ñi ni dañu bëggoon a dellu foofu sax ngir récupérer seen i bagages waaye amuñu fa ak si ndax takk der yi ñoom ñoo fa taxaw ñu lu ci reportage Habib Faye ak Youssou Baro Daaru Salaam cité bi ñu duppee ko amatul ña fi dëkkoon doon fi yeewu préfet bu ndakaar ci dimaas gi la leen fi jëlee ñetti fan ci tey ñoom ñi ci mbedd bi lañuy nekk ci biti lañuy fanaan. dara jëluma dara. ah gisoo ñi taxaw ñi taxaw ñi taxaw ñu ngi ni yor seeni i loccormazelle yor seen lu ne kenn génnewul dara ay million et millions lañ yàq. ci bayaal bi lañu teg. seeni bagaas fii lañuy ñuy defee lépp. waaye mënuñoo toog ci mbedd mi fii ñuy naaj bi tàng na suñu doom yi xamuñu si lu ñu nekk suñu borom kër xamuñu si lu ñu nekk ñu nekk fii di sonn di tumuraan ndox bi bu muy taw fii la ñu fekk ñu toog bu mu sebetee suñu weeraat suñu sër yi toog noonu la yére yi suñu yaram. ca ñoom Abdoulaye Diallo mi jéem a dem ngir jëli ci yenn bagaasam ya desoon foofee waaye mujjuta antu lu ko waral moo dikk waaye takku der yi taxaw. ne du am. pour récupérer samay bagage man loolu kese moom andi fii. léegi ñu def ni ban intérêt la leen amal amul leen intérêt. cent mille mu ngi sama suufu matelas dama yëkkati moquette bi dugal ko fa jël matelas bi teg ci kawam man damay liggéey mburu ba pare damay jaay yére en plus léegi loolu yëpp ma ñaaku ko ah nga bëgg a fii tey sax boo doon yéeg dañ lay téye ne bul yéeg ngay dugg ci biir ñu ne la génnaatal nga jël sa saak ñu la tegal. fii ndaw ñi ñi ngi xool ana na la ñuy bégalee seen xol matelas yi ñu wéer ko ca naaj bi te sax ñenn ñi di warub ker ci suufu panneau publicitaire yi. wax dëgg yàlla moom fi mu toll nii moom amatuma yaakaar parce que police yaa ngi taxaw li fi nekkoon yëpp daal ñoom daal jël nañ ko. seen ak jafe-jafe ma ngay gën di yokk gannaaw ba nga xam ne jëlee nañ leen ci cité imbécile ñoom ñi ne ñoo ngi koy yëg bu baax bile cité dara desatu fi. jërëjëf euh, Habib Faye soxna Faty li moo fi gënoon a fës ci xibaar. jërëjëf euh, Cheikh Tidiane Diaw xibaar yi buur na ëllëg dina dellu si léegi léegi ñu dem seeti Chérif ci yenn yi ak la ñu xëyee ñaareelu pàcc bi lay doon.